ndax man dégg naa waa ji TFM mu naan machine bi toq ndox lay defar 11000 litres du toq ndox waa li ñu bëgg xam nag Sénégal mooy depuis 2015 ba léegi ndox boobu est-ce que nit ñi ñu ngi koy naan wala naanuñu ko ay Aïdara journaliste d'investigation mi ngi lëmbee Sénégal mi ngi lëmbee dëkk bi Baba Aïdara dafa ñëw vacances rek la ñëw waaye fi mu nekk nii Sénégal koo laaj mi ngi la machine kaka buy defar ndox moo am Sénégal léegi nit ñi est-ce que ndox bi ñuy naan wóor na man nag dama am samay abone yoo xam ne semaine passée sax defe naa lañ ma wax Mister Shake waxal ci machine kaka man ba ma déggee loolu man dama yaakaaroon ne sax waa ji day fo waaw parce que man xaw ma woon sax ne machine bu mel noonu am na fi. dañoo war a gërëm ay Aïdara ndax lu bon bon mu ñuy xamal man xaw ma ne am na benn machine bu ñu tuddee. processor bu nek fi Dakar légui nak wax ji moy lan baba mom dafa génn ben vidéo mi ngi Sénégal fi mu nek ni mu ne boo leen demee ci 9e minute vidéo bi di ngeen dégg waa ji fu mu machine bi processor bi day euh ndox mais effectivement vidéo bi en anglais la man bama démé dégglu à la 9e minute waji limu li wax c'est très clair wax na né effectivement dafa machine boobu day créer day defar ndox. waaw léegi am omniprocesseur nan lay doxe am doxee omniprocesseur dafay jël ndoxu boucher bi nga xam ne dañ ko doon sotti ci ay dex wala ñu sotti ko ci géej gi wala mu nekk ci mbeddal bi di mbedd bi di sonal nit ñi. ñi nga xam ne seen kër amuñu tuyau foos la am am na kër yoo xam ne foos la am bu foos bi fa feesee dañuy woo nit nit ki ñëw daal di dindi ndox mu salte boobu léegi nag ñi liggéey ci am ni processeur bu boobaa ñoom ñooy ñëw ñoom ñooy récupérer ndox boobu kon déjà loolu lu baax ndox boobu nag la ñuy jël daal di ko liggéeyee ak suuf seeg lépp. bu ñu ko jëlee nag dugal ko ci machine bi machine da koy tàngal ba mu tàng jër bu ko tàngalee ba mu tàng jër am na benn vapeur maanaam saxaar ndox buy génn saxaar boobu machine da koy denc bu ko dencee am fu mu ko jaarale raxas ko ba mu set wicc rey bactéries yi dindi feere yooyu lépp li nga xam ne day gaañ nit da koy dindi. léegi bu ko dindee des fois am na ñu waxee day lu mat ay mille degré tàngaay bu métti la boo xam ne lépp lu ci bon da koy dindi rey ko loolu nag mooy nekk après nag ci lay dem nekk ndox boo xam ne dinañ ko mën a naan wane nañ Bill Gates bi nga xam ne moom moom finance machine bi wane nañ ko mu jël ndox machine bi génn génn ndox mu jël kaas guux ci dinaa leen ko wan léegi si suuf fii ci benn lien ngeen cliquer di ngeen ko gis kon pour ñoom waa Bill Gates lii lu wër la day dafay defar ndox kon débat bi ay dara gagné na foofu gagné na foofu li mu wax dëgg la onze mille litres par jour la machine bi di defar waa li ñu bëgg xam nag Sénégal mooy depuis 2015 ba léegi ndox boobu est-ce que nit ñi ñu ngi koy naan wala naanuñu ko ñun waxuñu ne ndox bi baaxul de mais dañoo bëgg xam ndax ndox boobu ci ay butéel lañ ko def wala ndox boobu dañ ko jaay waa SDE Baba Aïdara question boobu lay posé mu ne est-ce que bu ñu demee ba ci biir d'ici cinq ans dix ans

xam nga nit ñi di ko naan c' est vrai que nag ndoxu Lac de Guiers ak ndoxu Boucher wuute na mais nag nous sommes au vingt et unième siècle if da ngay gëm science wala nga bañ a gëm science te usine boobu du loolu rek lay defar dafay defar courant Boucher bi bu ko tàngalee ba mu tàng dafay des lu mel ne ban xam nga ban boobu moom la machine bi di jël mu mel ne këriñam loolu mooy tàngalaat ndox bi baxal ko ba mu bax doog ko def ndox bu ñu mën a naan léegi loolu tamit dina ci am doomu taal bu ciy génn doom boobu mën nañ ci def lu ne mën nga ko liggéeyee di defar tali defe naa sax mën na defar engrais comme machine bu am njëriñ la Sénégal lañ ko fi njëkkee def kon ñun dañu war sant yàlla ci côté boobu gouvernement Macky Sall am na lu moo xam ne indi na ko fii ci réew mi. ñi nga xam ne nag dañoo jël di daal ci kaw ay dara lu tax parce que dafa laajte rek moom dafa laajte journaliste la dafa laajte man mii xam naa loo xam ne bu ay dara tey du ma ko xam musuma xam ne am ni processeur am na Sénégal. dégg naa sax am na beneen machine boo xam ne ndoxu géej bi lay defaraat lay dindi xorom bi. pour nit ñi di ko naan Macky Sall defar na ko fii senegal loolu ci Y'en a marre laa ko déggee ci caat Y'en a marre mooy onze mille litres doo yi nga xam ne moom la machine bi mën a defar bu leen ko tuuteel ndax man dégg naa waa ji TFM mu naan machine bi toq ndox lay defar onze mille litres du toq ndox ndax benn biteelu litre biteelu kireen yu mag yi litre la yu yi noonu litre la boo ci amee onze mille loolu du toq te machine bi mën na defar loolu onze mille par jour kon da dañoo bëgg xam ndox boobu fa lay jaar est ce que yéen yéen yéen ngi ciy naan ñun sénégalais est ce que ñu ngi ciy naan man rek gëm naa ne lu baax la man loolu gëm naa ko. waaw Bill Gates bu demee ba naan ko ñun war nañ ko mën a naan ndax Bill Gates am na feneen fu ko invité benn journaliste bu siiw bu ko invité foofu sa Amérique mu teg ñaari butéelu ndox yi ne ko naanal wax ma ban mooy ci ndoxu bouché ak ban mooy ci ndoxu robine waa ji mënu ko xam.